leen seen émission télévision Futur Média yi li ci penc mi dal leen ak euh, jàmm xibaar yi ñu xëyndool soxna Ngóone la ñuy àndal ci atal gi euh, nuyu naa la Ngóone mbam ngañ mën la fay nuyu mboolem téléspectateur yi ñu jàkkaar li ci gën a fës bokk yi jàpp leen ko dina ci bokk marche bi M23 woote woon ca place bu indépendance euh, te kaaraange gi ne du ci dal mu tukkee ci ministre de l'intérieur loolee mujj na jur nag mitit wu tar ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon manifestant yi ndax ay bombe lacrymogène yu leen takk der yi doon joor nañ ci ànd ak Ibou Kane ca ngéeñeen foofa itam metti woon na lool ah, ci cortège bi nga xam ni njiitu fal Abdoulaye wadd jaar na ko foofa ca dëkk Ousmane Tanor Dieng moom itam ay daamaram cortège am ay xeer lañu ko joor ba daanaka sax oto bu mu yéegoon moom Abdoulaye Wade am na lu ca tojote eh, dinañ ci ànd ak suñu atango bi nga xam ni moom moo ñu fa eh, nekkal ci wàllu ARMP gannaaw dogal bi ñu jëloon ñeel plan Takkal Euh, ñoom nag waxtaan nañ ci seen biir ba gis ni dogal boobee euh, bu fekkente ni jëluñu ci yeneen i matuwaay mën na tax euh, kuréel gi dootul am kattan gu mu saytoo liggéey bi ñu ko dénk xibaar yi mbokk yi buñ nañ ci ànd ak suñu naataangoo yi ñu àndal ci yenn candidat yi tàggaderam toftalu ci foofee la ñuy jeexalee xibaar yi incha allah mesut ñu dikkaag yéen ci yaatal gi ne bismillah ah, dañ koy tàmbale ak euh, manifestation M23 niñ ko xamee ci suba tey jii la woon euh, ñu jàppoon ko ci place de l'indépendance euh, mbir moomu nag jëriñ ji ñu dénk biir réew mi kon da ko daal di tere waaye teewut ñoom nañu ko diggee woon defee nañu ko ni ba it yëf ya mujjoon a tàng ndax takk der yi bawuñu leen ci woon Ibrahima Kane fii ci rond point RTS ay groupe yu ndaw ñu ngi formé wu nag ci teewaayu waa gendarmerie 11 heures weesu na wante ba léegi leaderu M23 yi ñu ngi leen di xaarandi Ibrahima Fall dong moo fi teew fi nag kaaraange gu am solo moo fi nekk ci takk der yi te benn ordre rek la ñu jot mooy wàññi manifestant yi. yoon moom may candidat élection présidentielle bu bu bu bu nekk nga mun def déclaration 24 heures et 24 heures après nga dem dox fu la neex si l'étendue du territoire national amul benn limite bu yoon imposé loolu Sénat bind na ko ministre de l'intérieur ne ko. article bi ngay évoqué ak arrêté préfectoral bi ngay évoqué mënuñu appliqué wu si si si période képp ku nekk candidat yoon may na la nga yëngu yëngal ngay ñaxtu walla nga def euh, caravane walla mitin ci réew mi fépp foo ko bëggee kenn mën la koo aaye ba fi mu nekk tekkaaral la nemmeeku woon waaye yëf yi soppi na. manifestant yi kon dañ leen dàq ak ay grenades lacrymogènes ci waxtu woowu Cheikh Bamba Dièye di leaderu yi nekk fële ci place de l'indépendance mu nekkoon chutu marché bi fii tamit lu ni mel lañ fa nemmeeku. way takk der yi daal di sànni ay grenade lacrymogène avenue Ponty ak rond point Sandaga ñu nemmeeku fa ay sànnente xeer ak way takk der yi Idrissa Seck cortège am gémi yi dañ ko daal di arrêté jàmmaarloo yi nag am na ay gaañu gaañu yuñ ci nemmeeku comme ni ngeen koy gisee nii ci image yi marche M23 bi kon mujjul antu waaye leader yi nee ñoom duñ ci yem ndax dinañ amalaat yeneen manifestation te luñ ci jublu mooy président Abdoulaye Wade ñàkk a bokk ci vote yi ñu dëgg ma ñoo gisandoo événement yi nga xam ni tey moom moo xew ci place bu indépendance ne na lawee fu bari ci Ndakaaru ndax bi nga xamee ni euh, tàng na ci euh, manifestants yi ci la ñu daal di jéggi fi nga xam ni moom mooy euh, place de l'indépendance jaar ci Blaise Diagne bi jaar ci yeneen koñ yi mm-hmm. tey mu mel ni Ndakaaru tàngoon na ci événement bi nga xam ni moom la M23 woote woon. Pape tàng gi yëpp tukkee kon ci tere gi nga xamante ni jëwlin ji kon euh, tere nañu amal manifeste yooyu ca place l' indépendance ñenn ñi jàpp ni xëy na euh, bu fekkoon encadré nañu ko amaana yëf yi du euh, demee ni police dana ci topp ndax gis nga ni ñu nekkee sur le terrain macha allah xëy na ñii buñ ko encadré woon yëpp yi dana mën a jaar fu normal ñoom tamit. pour ñu encadré ko dañ koy autorisé d' abord. mooy loolu bu fekkoon xëy na autorisé nañ ko maanaam mooy ñu encadré ko nangul leen ko. xëy na du àgg fii mais jëwriñ ci boppam indi na ci ay leeral lu waral moom tam ci wàllu tere googu ndax nee na euh, autorisation marché bi ñu ko indi euh, nekkuñu ay euh, candidat moom maître Ousmane Ngom loolu la xamle waa Sénat ci boppam indi ci ay leeral sukkandiku ci article L61 bu code électoral ndax nee nañ manifester ci campagne électorale bi dinañ ci ñëw lu mën a nekk la dinañ ñëw ci ci leeral yooyu nga xam ni Sénat def nañ ko mais dañuy dem fële nga xam ni moo nekkoon ci place bu indépendance ndax njiitu fekkee ma ci boole Ndour ma nga fa woon euh, jot na fa sax euh, weccante ay kàddu ak ñenn ci takk der yi rawatina kii di commissaire Arona Sy euh, ñu déglu leen. laay moom laay def moom laay def gisuñu eh, ah, wootewuñu dara ñu dul juste manifester pacifiquement quand même il faut que nga wax ak nit ñi ñu bàyyi ñu mu nekkoon ca place bu indépendance tey bi nga xamee ni lu bari ci leader yi woon nañu foofa ah, njiitu fekkee ma ci boole Youssou Ndour moom itam ah, ma nga fa woon ci ah, loolu sax la ñuy wéy soxna Ngoné ndax du moom rek moo fa teewoon Chérif Dia am na ñeneen ñu fa daje. am na ñeneen ñoo xamante ni it ña nga woon ci manifester boobu maanaam dox da jële woon ku demee di ni Cheikh Tidiane Gadio Djibril Ngom Youssou Ndour bi nga xamante ni gis ngeen ko léegi waaye it Mamadou Lamine Diallo ci tere gi nga xamante ni tere nañ ko manifestation bi ba aussi mujjee indi coow yëkkati nañ ci seen kàddu waxtaan ceeg Chérif Dia loolu nag euh, loolu moo tax ñu manifester Ablaye Wade warul nekk candidat constitution bi ñaari mandat la ko may def na ko jeexal na nañu bàyyi suñu réew. parce que lii ñuy def nii ci yoon lañ ko teg euh, élection bu jotee dañ ne doomu Sénégal fu ko neex mën a dem ci campagne bi donc que ministre de l' bëgg def benn arrêté boo xam ne suñu constitution mayu ko ko comme patron li muy def bokk ci élection yi te yoon mayu ko ko problème boobu mënuñu ko nangu ñun mënuñu ko nangu. Euh, te ñun ñëpp xam nañ ne jàmm la ñu bëggal ci réew mi woote wuñu violence woote wuñu dara lu ñu woote mooy nañu respecté suñu constitution réew loolu nag moo leen të moo tax ñuy def lii yaa ma naan ndax Abdoulaye Wade pourtant Abdoulaye Wade campagne fan la campagne xamoon nañu campagne Abdoulaye Wade jëkk ya comparé ak 2000 ak 2007 moom si boppam xool bi nekku ci enthousiasme nekku ci parce que xam ne ne mi ngi indi gilaawaali ci réew mi ngi indi problème Sénégal wax nañu ba sonn nit ñi proposé nañ ko lu nekk déroulé ko tapis mu dem ci jàmm ak salaam mais bañ na effectivement mi ngi fi man li ma wax c'est très clair wax naa ko waxaat ko parce que li ma wax man du ma wax waxeet damay wax waxaat CNT conseil national de transition loolu moo koy xaar au bout du au bout du coup d'état électoral s'il persiste et signe imposé sénégalais yi boppam ne gagné na élection yi kenn gëmul ne Abdoulaye Wade mën na fi gagné élection te ngeen jege palem bi moo tax mu tere la waa li li ñu jege palais mais palais bi askan wee ko moom moom locataire la rek boo fayatul loyer loyer bu am na yoon moyen la may bu jotee dañ lay génne donc moom fi mu nekk fayatul loyer dañuy demande de partir. ah je ne sais pas yi moom ma ko woon day dafa bëggoon wax ma dara. Hmm. ñu ko woon ni affaire yi dañ ko tere. ah ñu ko woon ni dañu tere manifestation. ah, ah kay après di nga wax di nga bëgg a wax. waaw xam nga ne ko yow sa nekku ci. li ko laaj moo tax ma koy ma waa non du ma du ma dem su ma bëggee du ma koy yóbbu su ma bëggee bu fa bëggee dem xanaa da nga bëggee ñëw wax naa ñoom ba pare sax. kon nag dama déglu sama oto nga ne. ma andil la ko waaw man wax naa ma andil la ko bàyyi ma andil la ko. waaw mais gis ngeen ne que doxu ñaxtu bi mënul sotti. kenn mënul dugg si ci ville bi ñi nga xam ne ñoom ñoo commencé marche bi ñu sànni leen ay lacrymogène population bi ñu ngi nii ñun waxuñu ay waxu neen ñii kenn ënwu leen fi ak ay kaar wala ay dara dañu ñëw pour wax non a la troisième candidature de, de, du président sortant loolu moo tax nit ñi ñëw fi ñëwuñu fi pour xeex ñëwuñu fi pour rey ñëwuñu fi pour dara mais ñoom ñoo nekkul ci yoon ñoom ñoo nekkul ci yoon xanaa kay kuy interdire manifestation ba kat campagne électorale nga ubbi ko yow ne officiel na nga bàyyi nit ñi mais c'est quoi ça c'est quoi ça Le combat, il continue au niveau du M23. Ça, c'est clair que le Sénégal, duñu nangu fokkati bii ñu bëgg a nguur gi pour je ne sais pas quoi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñëpp dañ ciy taxaw muy Youssou Ndour muy yeneen leaders yi ñoom ñoom aussi def nañu seen rôle ba mu mat sëkk population def nañu seen rôle ba mu mat sëkk je crois que nag dañuy continuer ànd ak détermination pour wane ne que lii d'accord ñu seet du fi am Youssou Ndour ak euh, yeneen i leader kon ci manifestation wu tey jii commission électorale nationale autonome maanaam Sénat ñoom nag euh, yëkkati nañ ci seen i kaddu ki yor euh, seen kaddu googu di porte parole bi xam leen ni li waral jëwrin ji kon tere manifestation boobu mi ngi sukkandiku ci ni ñi ko déposé demande bi du ñu ay candidat Alioune Tine ak Amath Dansokho ci nag mbir moomu la maître Ousmane sukkandiku kon ba tere manifestation boobu ndax leer na leen mooy lépp lu di manifestation ci campagne électorale bi kon euh, dañu ko war a kenn du ko tere mais euh, dafa fekk ni kon ñi ko déposé du ñu ay candidat leeral yooyu la ñu indi du ñàkk suñu yeneen i jokkoo euh, ngeen dégg ci Issa Sall coalition Macky 2012 moom nee na boycotté wul benn yoon élection yooyu ci li mu gis moo di waxtu wi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kon bureau de vote yi ñu sécuriser leen maanaam indi fa kaaraange daal ba benn ko njuuj njaaj du ci mën am loola waral ñoom am nañu taxawee El Hadj Hamidou Kassé euh, di ci waxtaan ak euh, Maymouna Ndiaye Madani Mariga. plus de treize mille bureaux de vote maanaam ay junni junni bureau de vote bureau de vote bu nekk ñun am nañ fa représentant représentant bu nekk dinañ ko doubler maanaam ñu nekk ñaar pour que jour élection ñu mën a sécuriser mën a sécuriser vote citoyen maanaam li citoyen yi wax. ñu mën ko sécuriser résultat yi aussi ñu mën ko sécuriser ay nitu fitina lañu mais de toutes les façons bu persister maanaam bu bu bu demee jël décision vraiment ne il faut mu participer dinañ ko fa fekk te din wax sénégalais yi ñun ñëw jël seeni carte bañ a jël kartam coalition Macky 2012 boobu leeral ni maître Abdoulaye Wade nag dafa bëgg euh, Macky Sall bañ a wéyal yoonam ci mbir moomu nag euh, li ko waral moom moo di nee nañ weer mbirum waaso yi nga xamante ni njiitu réew mi mi ngi koy wax ak di ko avancé ñoom nag faux débat la ñu jàppee lu ni mel euh, ba tax na daal nee na ñoom danañu wees seen liggéey ñu doon séq ak ndajaak waay xibaar yi collectif bi ëmb kon ay kuréel ONG ñoom nag la ñu bëgg rek moom moo di ñi ñuy wooyee observateur ñu daal di gën a yokk euh, seenu euh, xarañ loola waral lu toll ci ñaar fukk euh, ak juróom-ñett ci agent daal nañ leen di tas ci fukk ak ñeenti région yooyu ngir ñu tàggat ndaw ñi ci yenn anam la ñu mën a surveiller élection yooyu ba bu ëllëgee benn lënt-lënt du ci am Moussa Mbaye moom mooy coordinateur Enda dialogue politique mu taxawal euh, ay euh, organisation société civile yu nekk ci juróom euh, fukk ak ñeenti région wu Sénégal ngir ñu taxaw nekk ñuy caytu li nga xam ne mooy xew ndax dañu jàpp na ñi nekk ci dëkk bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo tax vote bi vote bi am ñoom ñoo war a taxaw xoolal ko seen bopp ndax jaar na ci tëralin yi bu jaaree ci tëralin ba nga xam ne ki fi taxaw waa dëkk bi ñoo la fi teg dëggantaan coow li nga fiy gis yëpp mën nañ jàpp ne euh, dana dana dañal boppam looloo tax ñu indi leen fii di leen tàggat ñoom comme ay formateur yoo xam ne bu ñu euh, jàppee ni li nga xam ne mooy observateur lan la war a def lan la warul def ak tëralinu liggéey bi euh, ak jumtukaay yi ñu war a jëfandikoo ñu xam ko bu ñu demee dellu ñoom tamit tàggat seen yeneen moroom yi nekk ci région yi ba nga xam ne dinañ mën a am nekk ci bureau de vote yu bëri di xool lu xew ci ci élection yi Maodo Malick Pouy amoon toll ci juróom benni at ñu faatoon ko fii ci sëg yi Soumbédioune yi moom nag am na ku yoon jotagul teg loxo ci kon l'enquête bi aju euh, ci faat bakkanam boobu mi ngi woon nag ci turok Mamadou Mbaye Wadji procureur de la République gannaaw ba ñu ko téye déglu ko la mu ko mujj a toppee waxtu yi moom moo di vagabondage waaye euh, ñi ngi ko téye ci division des investigations criminelles le temps kon ñoom nee nañ ñuy àggale euh, seen enquête boobu ngir yëf yi gën a mën a leer kon Euh, ci seen euh, bopp élèves ak euh, étudiants yi nga xamante ni seen gis-gis dafa wàññiku wala duñu gis ñoom nag amal nañu seen fanaan gu jëkk ca biti buntu assemblée nationale fa la ñu tàmmu ngir defee lu ni mel ñoom bachelier yooyu dañu gis ni nguur gi def leen seetaan ndax ay bourse yu leen may ñu dem ci bitim réew ba tey ji kenn joxu leen ko te université yi nekk ci Sénégal mënuñu leen a dalal ngir ñu jàng Aminata Mbaare Sow ak Moussa ñoo fa àndoon assemblée nationale la ñu mujj dem lal fa seen basang daal di fay fanaan étudiants yi nga xam ni dañoo amee laago nee nañu mënatuñu ci ni ñu nekkee li ñu bëgg a tey mooy nguur gi jóg ci seeni problème metti na moom ku nekk xam nga ne sedd bi fi jamono yi ñu toll nii ñu nekk seen ay néeg ndegam si ñoom lay metti waxuma laa ngeen ñu fanaan ci biti donte sedd bi metti na te foofu bari na ngelaw waaye teewul ndaw yi ne dañuy dem ba bi ñu ñëw fii moom wax nañ gars yi nañ ko waajal parce que ñu ngi dem euh, mais xamuñ kañ lañu dellu si parce que ba ñuy ñëw suñu paas ñoo rek la ñu àndaale pour xam pour dëkk si léegi li ñu fi mën di jële mooy euh, satisfaction. exactement mooy bépp silmaxa bu am bagam ñu mën la yóbbu comme nañ ko doon defee nga jàngi à l'étranger actuellement parce que lu tax ñu war la yóbbu à l'étranger mooy amul benn université au Sénégal bu ñu waajal jamono jii nii ba handicapé yi man visuel yi man fa jàngee correctement. kon en attendant ñuy préparer université yi ci loolu bépp non-voyant buy def bac wala bu am bac ba pare dañ la war a jox pré-inscription ak bourse nga dem ci seen xeex boobu nag ñenn ci ay candidat ci présidentielle bi ñu jëm daal di nañ fay ñëw ngir jàppale leen. bu ñu yàlla mayee ndam ñun tey fas nañ yéene bay ci suñu waar suñu kamtelaayu kàttan maa ngi leen di ñaax ci. bu ngeen ko mënee ngeen dakkal e, xiifu ñaxtu bi ndax yàlla daanaka may na leen ndam gannaaw léegi ñëpp yëg nañu seen i jafe-jafe. yéeneem la bu rafet ak euh, ñëwante bu ñu ñëwante vraiment mais wax dëgg may boobu loolu man man lañ ko ko may mais wax dëgg am actuellement nii moom nañu jéggal ñu ni dañ ko ñaar rek mu bàyyi ñu continuer suñu mouvement. parce que li ñu naan avenir yu jàmbur kenn du ci discuter quoi te ñun suñu avenir moo nekk en jeu actuellement ba suñu slogan mooy suñu avenir suñu bakkan. ndongo yi nga xam ni dañoo amee laago ëpp nañ juróom fukk ñoom nag ñu ngi ñaan nguur gi ñu may leen ay bourse ngir ñu dem eggali seeni njàng ci xibaar yi ñu mujjee jot Kalidou Diallo daal dina fay yónnee délégation ngir ñu waxtaan ci ñu ne Tamare ñu koy euh, jaajëfal foofu la ñuy kon pat ci wàllu actualité. jërëjëf euh, soxna Ngone ñu wéy ba tey ci li ci penc ci waa télévision Futur Média euh, wax lu jëm ci waa ARMP nga xam mooy kuréel gi saytu marché public yi lu jëm ci décret de janvier bi génne woon plan tàkkal ci saytu ko loolu nag jàpp nañ ni bu wéyee daal dana néewal doole lool kuréel gi na Nafissatou Sylla ak Germaine joor def nañ ci reportage. décret bu bees bi bu ñaari fan ci weeru janvier bi ñu jógee di wax ci coppite code des marchés yi ñu def ko ci gannaawu ARMP mu di mu di autorité de régulation des marchés publics neexu la ñii di waa forum civil. décret bi nga xam ne président public jël na ko jox possibilité pour doomam daal di jënd ci loo xam ne du ko contrôler mais fan la économie di jëm te fi nekk ni boo xoolee ressources publiques yëpp dañ ko jël daal ko dugal ci biir ci biir plan Takkal nga jël xaalis xam ne nga dugal ci plan te plan Takkal boobu noonu buy jënd kenn ko contrôler. loolu nekk loo xam ne baax na ci économie lu dangereux également ci économie la. ay gàllankoor nag du si mën a ñàkk te waa forum civil nee nañu waa ARMP dañaa war a jël seen i matuwaay. au Sénégal kenn mënu fa jël texte boo xam ne day concerner marché public wala kenn mënu fa jël texte boo xam ne day concerner délégation de service public wala contrat de partenariat te doo demander avis euh, ARMP. parce que bu fekkee ne nga am pouvoir boo xam ne ko jox maanaam li ñu wax conseil de nation dañu war a parce que loolu jox ko ñoom cër loolu ñoo ne mën nañu ko defaat te dooñu lépp lu ñuy concerner réglementation marché public maanaam doxalin bi ci ñun la war a jóge ñun doo ko teg fen ba pare gàllankoor ko jaar ci am def leneen métti nañu nag. coppite gi nag nekkul lu bees bu ñu dégloo kii di Birahim Seck lii président de la république def dafay naxasal doole waa ARMP. boo xoolee au niveau de Sénégal ñaar modification yi gën a dangereux ci marché public bi président de la République mu ngi ko jël au profit ci ay doomam première modification première modification bi c'était le 13 septembre 2010 période fesman bi président de la République daal di modifier code des marchés pour jox possibilité doomam si njëli wàdd passer ay marché en tant que direct ci wàllu fesman bi beneen beneen beneen beneen wàll bi également mi ngi ko jox également beneen doomam muy Karim Wade ci wàllu décret bi 2 janvier bi nii donc dañu wax ne actuellement bu fekkente ni continué code des marchés amatul Sénégal. gannaaw ba décret boobu tàbbee waa ARMP nag génne nañu benn communiqué ngir ñaawlu li ni mel ndax day mel ni ñoom amuñu fi njariñ te lu waaye neex def. ci wàllu politique bi la ñuy daal di dikk làmbi suñu correspondant yi nekk ci biir réew mi ànd ak yenn candidat yi euh, laataa ñu ciy dem ñu xamal leen ni ca Sédhiou ñu ngi fay xaar kii di Macky Sall ëllëg àjjuma ñu fay xaar président Abdoulaye Wade ci fàttali nag 2007 ñoom ñaar ñoo fa àndoon campagne yi ñu fa diggee woon nag dañ caa deful dara muy taliya ak marché ya nga xam ni waxoon nañu leen dinañ leen ko fa amal loole ak i pont amul dara ak i forage yoo xam ni defal nañ leen ko foofa ca Sédhiou euh, loolu nag tax na ba seen ñaari gan yooyu muy Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñoom ñi ngi waajal ay marche euh, ngir fàttali leen seen diggée ñu leen diggoon euh, ñoom waa Sédhiou jombul dinañ ci ànd ak Bakary Konté ci noonu la ñuy dem fekki Adiya Talla Adiya moom candidat bu fal Abdoulaye Wade moom la topp ña nga ca Mbour mm, ca ngéeñeen nag tàngoon na Euh, ngir gën ci am lu leer daal dañuy déglu kii nga xam ni mooy Adiya Talla Adiya ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay fay Pape Ngagne Ndiaye. waaw Adiya naka la naka la maanaam euh, meeting yi nga xam ni Abdoulaye Wade mi ngi koy def ci booru siin jàpp saalum euh, fan la toll tey. waa ñoo ngi nii di jóge fi nga xamante mooy Mbour si kër Cheikh Béthio Thioune maître Abdoulaye Wade nag kii di Cheikh Béthio Thioune gënal na ko. may ko ay ñaan tamit li ñu mën a nemmeeku tamit mooy que maître Abdoulaye Wade tey amul lu muy yekkul li nga xamante ni mooy l'opposition bi muy li nga xamante ni mosu ko def bi compagne électorale bi commencé ba léegi li ko waral nag mooy li xew ci yoon bi diggante Joal Caajaay li fa xew daal mooy que ku ñu romb rek ay brassard rouge lañ fay nemmeeku ay sagar yu xonk ak ay yuuxu te nga xamante ni nag mooy ngéñeen di sie di fieefu kii di Ousmane Tanor foofu nag cortège u maître Abdoulaye Wade bi dañu sànni dañu leen sànni ay xeer am sax ñi nga xamante ni ñoo ngi doon jàmbaarloo ak ñi nga xamante ni ñooy gérer sécurité maître Abdoulaye Wade kii di oto Abdoulaye Wade bi tamit vitram arrière bi moom toj nañ ko bi ñu yeggee Mbour nag ci candidat maître Abdoulaye Wade doon waroon amal benn meeting libéraux yi tertu nañ ko bu baax maître Abdoulaye Wade nag lancé na benn message kii di Ousmane Tanor Dieng di ko artu tamit ci ne rek nee na Ousmane Tanor Dieng fasciste la moom moo gën a violent ci opposition bi yëpp nee na dafa juumoon du muy wax ni que Tanor moo gënoon républicain secrétaire national PDS bi nag laaj na Ousmane Tanor Dieng di ko ne rek nañu bàyyi fitna yu muy fitna ci militants libéraux yi ci leader opposition yi tamit kii di maître Abdoulaye Wade nee na ñoom ñëpp seen wax yëpp su waxu kasaw kasaw la amul dara lu ciy dëgg te dañuy dem ba ci opinion internationale bi di leen yekk di ko yekk li li di xemeñ te nee moom loolu dootu ko nangu te nee na ñoom dafa mel ni dañu nekk ci buumu jàmb fu ñu nekk nii candidat coalition de euh, PAL 2012 yi nag bu mu jëlee karol bu mu jëlee euh, kàddu def na benn révélation nee na am na benn responsable politique du ko woo ngir woote ngir bëgg a négocier rek luy dialogue politique nee na nag moom dialogue politique mënu fi am ci situation bu ñu toll nii léegi xanaa bu élection yi weesoo mën na woote dialogue politique ca loolu sax moom du ko laaj ci wàllu promesse yi nag nee na ci Mbour dina leen defal benn programme modernisation dëkk bi dina defar benn université ak industrie de transformation yi tamit dina ko taxawal chef de village yi ñoom ñëpp dig na leen ay oto nee na ci communauté rurale bu nekk dina ko bàyyi ñaari wax ngir chef de village yi mën koo jëfandikoo nee na tamit ci salaire yi yi mu defoon ci Thiès dina ko def tamit foofu nga xamante ni mbuur la nee na chef village yëpp dinañu am dinañu am seeni salaire te tamit ci Joal jaar nañ fu muy premier étape bi kii di maître Abdoulaye Wade nee dina amal benn centre de formation professionnelle pour xale yi mag ñi nga xamante ni weesu nañu juróom-benn fukki at dina leen fay ku nekk weer bu nekk douze mille francs mu nekk nag seen revenu social par mois. pour ko :fra coalition :fra Fall 2012 tey bii nag lu ñu mën a nemmeeku rek mooy que :fra yombul woon ndax yuuxu yi bëri woon na ak fagar yu xonk yi moo tax ba mbir mi yombul woon Mbour nag moo ko xaw a sowee ndax militants yi xawoon nañu takku lool %e Pape Ngagne Ndiaye ñëwoon nañu nag ngir déglu discours :fra maître :fra boo xamante ni lim doon faral di def mooy ay discours yu gàtt waaye tey nag seetlu nañ ni que discours bi dafa xaw a gudd Pape Ngagne Ndiaye. waaw euh, Adia mu mel ni président Abdoulaye Wade euh, xalaat bi ma amoon ci Ousmane Tanor Dieng jàppee ko euh, opposant républicain kon loolu daal soppi na ko. waaw soppi na ko kay nee moom loolu nekkatu ko parce que ni mu wax nii nee Tanor est un fasciste. nee na Tanor fasciste la moo gën a soxor ci opposition bi yëpp mm. nag. ndax li xew tey Ndiéngène nee na nag daf leen laaj rek mooy ñu bàyyi violence bi parce que moom mosoon na nekk opposition. waaw addiya xamante nañu. addiya ndax loolu kon mën nañ ko jàpp beneen wax waxa wax wax waxeet. xaw ma ndax wax waxeet la loolu moom du man maa koy wax. xëy na ñuy walla wala donc man su mu ko waxee rek commentaire lay doon donc. Euh, ñëwoo ñu bàyyi ñu koy déglu wax nee na daal moom tey loolu la déclaré Tanor nee na daal c'est le plus violent de toute l'opposition nee na Tanor c'est jërëjëf Adia merci beaucoup kon gone ñoo ko déggandoo président Abdoulaye wadd euh, bu candidat FAL 2012 mi ngi woon ca euh, booru Thiadiaye jàpp Mbour ak Ngéñen ni ko Adia waxee nag metti woon na ci bi mu eggee ci euh, Ngéñen ci ñu fàttali Ngéñen foofu mooy dëkk Ousmane Tanor Dieng foofu nag ay xeer lañu ko fa teextoo ba ni ko Adia waxee sax vitre bu ginnaaw otom bi toj nañu ko. Euh, dem na itam ca Mbour ziare na fa Cheikh Béthio Thioune euh, wax na ko wax na itam lu jëm ci diggante moom ak Ousmane Tanor Dieng euh, wax ni dafa juumoon ci bi nga xamee ni jàppewoon na ko opposant républicain waaye gis na ni daal opposant yëpp moom moo ci gën a tàng xol moo ci gën a soxor noonu la ko gisee ban commentaire nga am ci liaison bi nga xam ni moom la Adiata la def ak ñun. parce que en fait xam naa nañ ko teertoo moo métti xëy na yaakaarul woon ni dana méttee noonu parce que xeer ko jóor ak xonq ya euh, na mu fa baree pour wan ko ne kontaan ñoom moo tax gis-gis ba mu amoon ci Tanor mu changé ko ndax xanaa euh, du ñàkk mu jàpp ne loolu lépp moo nekk ci ginnaaw ndax euh, ci fiefam ca zone am la demoon mais liñ ci mën a wax au delà de tout ça mooy buñ ko naree jàppee nii dina metti ndax bu dee ku dem sa zone moroom ñu daal di dafay indil fitna dégg nañ ko Kébémer Moustapha Niass Macky Sall tey ji Abdoulaye Wade mm-hmm. yooyu yëpp bu ñu ko indee dafay daal di nekk loo xamante ni lu jaasi sax génn na fa euh, leneen loo xamante ni sax bakkan kenn ñaanu ko euh, bu ñu moytu mën na ceeroot ba tax na war nañu xoolaat doxalin nii parce que yëf yi du ci ay fitna ay violence ak euh, mbir yooyu war nañ ko mën a indiwaat ci débat nañ ko daan defee indi ko ci wàllu programme indi ko ci li nga xamante ni moom moo yitte askan mais chaque fois lii ñuy def du seeni doom wala nañ ko joxe doomu keneen askan wi ci boppam ñoom ñoo ci gën a loru ba tax na ku ci nekk war nga xoolaat nooy doxalee ngir yëf yi ñu def ko ci yoon la. Ngoné jërëjëf dañu dem fekki Marie Christine Mendy moom Moustapha Niass la àndal Euh, Marie Christine ndax yaa ngi ci téléphone bi. waaw Pape Ngagne maa ngi ci téléphone bi. waaw ñu ngi lay nuyu di la laaj Tamba nga nekk ak Moustapha Niass wala Matam. Euh, maa ngi nii doogaa di dugg fii ci commune bu Matam Pape euh, fii nag militant yeeg partisan yu Benno Siggil Sénégal yépp ñoom génn nañu ngir tertu seen candidat Moustapha Niass moom nag bég loolu ci tertu boobu ñu ko tertu ba tax sax na dig na leen dina delloo si waat euh, lii di phosphate yu nendoor yi ngir euh, population bi askan bi gën cee mën a njariñoo moom euh, bés bu falo waaye nag balaa ñuy ñëw fii ci Matam caravane bi jot naa taxaw fële ca Ross Béthio foofu nag Moustapha Niass mi ngi di ngat suuf yi nga xam ne jàpp na ni kii di Abdoulaye Wade ak kii ñoñom ñoo ko jàppale séddale seen biir suuf yooyu nag bokk na ci fannaay Mbana ak yeneen yi suuf moom nee na bés bu faloo nekk président suuf yooyu yëpp da leen delloo ñii di seen uh, borom uh, Galaya muy département bu Matam Moustapha Niass moom namm na fa développé lii di uh, agriculture mu ni mu ko namee sukkalee nag bokk na ci di séddale ay engrais gratuitement ñu jàpp na ca Galaya comme ca fële ca Matam Moustapha Niass sargal na ñii di immigré yi ndax jàpp nañ ñooñu euh, def nañ bu baax lii di ci biir euh, Sénégal ñu ngi nii nag fii ci Matam ñu fa jógee dinañ jaar fële ca Bakel nar a fanaan yi Tamba xam ngeen voilà Marie-Christine mu ngi noonu kon Moustapha Niass la ca Matam euh, dégg ngeen itam lu aju ci euh, xalaatam euh, ñeel wàllu suuf yi ni mu waxee ni noonee la ko nguuru Abdoulaye Wade pasar pasare fu ci mel ni ci mbaan ak yeneen gox yoo yu mu yëkkati kàddoom wax ni daal dina ci jël ay matuwaay moom bu ñu ko dénkee réew mi Moustapha Niass la foofa ca Matam Marie-Christine Mendy moo ñu ko toppal dinañu ànd ak suñu yeneen i natango yu ñu àndal toppal ñu itam yeneen candidat yi soobu ci jongante bi euh, fi lekk ñuy euh, daj beneen candidat Abdoulaye maa ngi lay nuyu. fay naa la Pape fileeg ñu jot beneen candidat ci tàggat yaram war nga ci soobu waaye laataa ñu dikk jëmbul ni am nga commentaire aju ci bisub tey bi M23 tey ca place de l'indépendance eh, metti woon na seen digg ak eh, takk der yi donte mën nañu wax ni réussite la ci euh, ci ci si yéene bi ñu amoon dem nañ ba place de l'indépendance waaye mujj ñu fa def xëy na la ñu amoon yéene. ah xëy na lu ñuy lu ñuy waxaat la rek encore une fois réew mi ni mu tëddee charte yi. ndeyu charte réew mi li mu tëral ñëpp xam nañ ko waaye bu dee ñi yor nguur gi ñooy njëkk bañ wàccook moom mooy njëkk jaaxal askan wi donc ni ñuy wax mooy constitution bi loo xam ni da ko maye la période électorale fu la neex fu la neex nga campagne fa bu la neexoon sax bu buntu kër njiitu réew mi nga dem fa ndax da ngay battre campagne bu la neexee ne da ngay jéem a convaincre na ña nekk ca biir donte dina difficile ñu ñu ñëw wuyu si la wala votel la donc gisuma lu waroon tax mu mujjee nii waroon nañ jéem a seet nu ñuy encadrer manifestation bi mu mu mu am ci jàmm ak salaam mais bon argument yi ministre de l'intérieur avancé que ni ñuy demandé autorisation bi du ñooy candidat loolu jombul ne yomb naa rek non bu ñu waxee loolu Cheikh Bamba Dièye du candidat c'est que Pape mooy ni ñuy wax léeg-léeg boo waxee dëgg gi sax day niru day niru leneen mais dafa fekk ni dëgg goo xam ne la neexu la weddi Cheikh Bamba Dièye candidat la bu ko neexee déposé def na ko dans les délais 24 heures avant auprès de l'autorité administrative donc on ne voit pas pourquoi affaire yi mujjee nii mais nañ nañ leen bàyyi ñu def seen manifestation moom ak ku koy jàppale. mais bu dee loolu la kay xam naa ni du du jafe ñu ñu indi ko ñu indi ci solution ndax euh, peut-être tey wala suba bu ñu bu ay candidat Euh, déposer seen autorisation jombul dinañ seen demande d' autorisation peut être ñu autoriser leen. mais mais mais placer l' indépendance. mais autorisation bi sax mooy li ñuy wax en fait ni ñuy wax euh, bu dee manifester ci yoon. ci yëg voilà yëgal la. autorisation sax bu ñu koy wax day day day niru leneen mais yëgal la au la de ça mooy li ñuy wax ñi yore nguur gi yor kàttan gi ñoom ñoo mën a def lépp li nga xam ni war nañ koo def ngir jàmm am kuy organiser manifestation ñu encadré ko bu dee nag da ngay déborder wala def naka sudul noonu bu boobaa ñu taxaw ci mais boo ba ngay dégg ni dispersé nañ manifestation bi doo gis ni am na provocation wala dégg nga ko ñoom nag encadré wuñu ko mais li ñu def mooy chargé ci kaw exactement parce que tey ku taxoon place de l'indépendance gis nga bi nga xamee ni gis nga bi nga xamee ni euh, leader yi ñu ngi ci kaw ci la takk der yi daal di dóor seen ay lacrymogène ci seen kaw. Pape daal justement loolu la ñuy wax gis nga répression ak tere ça doit être en démocratie l'exception mais fii on voit que c'est le contraire c'est finalement la règle dañuy tere ak di dóor alors que ça devait être le contraire du loo xam ni mën nañ ko rafetlu rafetul ci deru Sénégal rafetul ci turu Sénégal ci àddina bi fi ñu yeggoon ay jamono ci démocratie ñu bëri doon ko doon ko bàkkoo fi mu nekk nii réew yi ñu wër dem nañ fa mais ñoom ñoo ñu raw ci côté boobu amatuñ luñ ci wax ñu def transition bi jingalu sport bi après ñu ñëw dalal la nga yaatal ko la régie tàggat yaram. ci wàllu tàggat yaram match xarito la ñu dëgmal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février bi équipe nationale bu Sénégal ci Durban ak Afrique du Sud euh, list bi siiw na euh, regroupement bi nag ca France fan yi ñu dëgmal la euh, app bi danañ ko jàpp Karim Sega Diouf ak Aliou Cissé mi ñu dénk bees équipe national bi mu am ñu ci bees mel ni Ricardo Fatimi ak nekk ca Arik Sarolnik bu Grèce waaye it Pape Gueye Pape Gueye moom mi ngi football. bokkul ci métalliste Ukraine kii Boubacar Djalipa Diaban la Euh, moom it euh, mi ngi football fële ca Belgique euh, am na it Moussa Konaté mi nga xam ni moom ma nga ca Maccabi Tel Aviv ca Israël muy ay xarkanam yu bees ci équipe nationale bi ñoom Cheikhou Kouyaté Boubacar Jaliba di dellu si nii Moussa Konaté mi mu leen doon jund 18 ans la am doon football Tourékounda Stéphane Badji nekkoon moom ca Casa Sport dem na ca Norvège Cheikhou Kouyaté mi ngi Anderlecht Belgique Ibrahima Bal Kanté it nekk euh, fële ca Osasuna waaye it Zarko toure moom mi ngi football euh, Boulogne-sur-Mer muy ay xaram ay xar kanam yu bees ñenn ñi nekkoon ci olympique yi ñeneen ñi ñoom guleet ñu woo leen ci équipe nationale bi lu mu ci mënti doon jàppale ne am na ñoo xam ni bokkuñu ci sélection bi mel ni capitaine bi Mamadou Niang dinañ ci dikkaat ci lu gën a yaatu euh, ci wàllu huitième de finale Champions League ci kanam tuuti choc match bu rëy diggante Milan AC ak Arsenal Euh, bu 7 heures feggee ñeent fukki minutes ak euh, juróom la Zenit Saint-Pétersbourg ak Benfica moom pare nañ euh, waa Russie yi ñoo daan ñetti bal ci ñaar waa Portugal yi démb daan benn ci dara Apoel Nicosie Leverkusen moom Barcelone seen entraîneur mi ngeen di gis nii Pep Guardiola Barcelone moo fekk ca Allemagne Leverkusen daan ko ñett ci benn ci ay bés bi nu dëgmal danañu wéyal yeneen jongante yi bokk na ci Real de Madrid mi fekki CSKA Moscou waaye it euh, Marseille mi dalal Inter ci tënk pap euh, comme waxtu wi daf ñoo dab nga looloo doon li gën a fës ci wàllu tàggat yaram Abdoulaye Dar jërëjëf mbokk yi li mooy li gënoon a fës ci xibaaru li ci penc mi ak télévision Futurs média Euh, xibaar yi ñu xëy ndool sax na ngoone la ñu àndaloon ci atal gi euh, suñu naataangoo yi ànd ak candidat yi jot nañ ci Adia Talla euh, jot nañ ci Marie Christine Mendy am na ñeneen ñuy ànd ak Macky Sall ku ci mel ni Daniel Diouf jombul dinañu ko jot ak yeneen naataangoo yi ànd ak yeneen candidat yi nekk tey Euh, ci terrain bi ngir euh, lu aju ci wàllu campagne bi euh, li ci gënoon fës nag muy marche bi M23 doon amal tey ca place de l'indépendance fa mu mujjee gis ngeen ko fa mu njëkkee itam mooy ñoom candidat yépp jot nañu ñu ci bari egg ci place de l'indépendance waaye ginnaaw bi lalkat yi sox ay bombe lacrymogène ci seen kaw ci la ñu tasaaroo foofe la mbir ma mujjee kon mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen di leen jox daje 20 ak xalifa Diakhaté lay doon ci euh, l'incontournable jërë ngeen jëf